Assalamualaikum, assalamualaikum boku internet di ñuy seetaan tey nag dama leen indil gan waaye gan ko màgg waaye balaa boobu dama leen di nuyu rek di leen ziar di leen jox seen wàccuwaay di leen wax ne nag tey indi gan gu màgg macha allah wax Sabor ah umu Sow moom international umu Sow ko xamante ni la kenn dot ko présenté ci mim réew ndax def ci aar xanaa ma jox ko mu nuyu rek mbokku internet di umu no def maa ngi lay nuyu aram mang lay fay eh, di kontaan sa teewaay di la bege bu baax a baax sama waji yo xam nga ne sama fekkon fekkoon may nelaw boo meune jogal sax bele jog wuyu la ndax sa personnalité sa dignité sa tofel ci man mom saw ñimi andal ñep ko bëgg animatrice sax dañ ko sop lolo tax boo ñëwee fi tay ah ci sama kër mag ji nga xam ne dama ñew pour relax rek ba ci kanam man saw dama naan bëre rek wax ak yow waa dégg ngeen loolu kooku mooy Oumou saw di nit ku baax waaye di artiste complet xanaa rek ñu gëj la gis nag Oumou. ah waaye gëj-gis bi de xëy na kiiwul noonu ndax xam nga Covid bi macha allah gars yi dañoo wàcce woon lépp ci suuf donc ma nekk animatrice euh, nekk fële ca 7TV di def ay Oumou Show chaque samedi 16h en même temps may def ndogu ndaanaan ci koor gi. ci côté boobu laa basé wu woon waaw côté aar bi nag dama ko tegoon ci suuf comme Covid leen nekkoon daal macha allah. waaye man dafa am lu may laaj. Mm-hmm. te dafa jaaxal ñëpp. Mm-hmm. ñu gis ni Oumou saw macha allah. Mm-hmm. def na ay at at ci wàllu musique. mais kenn mësu koo dégg ci benn yëfi ñàkk fayda. lan mooy secret Oumou saw ah secret Oumou saw mooy jubal dëggal leeral. secret Oumou saw mooy xool. fi ay mamam tegon tank, mu teg tank fofu parce que dama am sama mam bo xamne mo jur sama papa ak sama badjan, ñom ñoma ayar, yar donc euh, éducation bobu ma gis ñu ma ci don tek ci lolu rek ki euh, dundu parce que nee nañ nan bu fekke da nga bëgg muccu ci jamono yi ak xew ci jamono yi da ngay gàtt tànk mm-hmm. sécurité bi tamit gatt tank mi ngi ci waaw man moom farata rek laay dox su ma paree ñibbi si sama kër. dëgg mhm. waa gis nañ loolu ci yow ndax lii fii riir riir riir li coow lii bari bari bari Oumou Sow fi def lii wala moo fi wax lii macha allah tubarkalla catuuma la macha allah kenn dégg ko te nag maanaam aar bi ku mu tax a yàpp sa pallax anoo di nga toog réccu ko ma naw la ci loolu nag saw sa boor comme ni la ñëpp nawee àddina nawe la ko waaye ma gis barki démb nga doon ngénte sa doom ngénte mhm. lu muy bànneex waaye di mbégte nan ko dundee loolu. waa ni ma ko dundee mooy mbégte ndax man yàlla def na musuma am xew comme musuma am xew presque quinze ans vingt ans maa ngi leble réew mi bëgg ma xale yi sopp ma seen cofeel ci man rek la ñu wan euh, liñ naan dompot sax si sot la bokk waaye xale yi dompotewuñu dañoo gàjje mobiliser ñëw ci man. renseignements généraux toog dañ ba guddi am ku ma woo ne ma yow yaay kan ma ne maa mu sow ñu ne ma loo xewle ma ne dama doon génte sama doom rek ñu ne mbooloo bi lan la lan moo xew ñu ngi wax seeni wax rek man leen mbooloo bi de ah samay nit rek a fi nekk ñu ne ban heure lay tas ma leen léegi mu tas yëf yi saralali ba 10 heures ci suba kon damay sant préfet de Dakar Diallo waaye it damay sant commissaire Sow commissaire quatrième ak soxnaam mi nga xam ne ne bi trois heures du matin jotee moom laa woo soxna si paas ma commissaire saw damay sant bu baax commissaire saw ndax tey jii ñoo ma indi renfort mm-hmm. indil ma ay auto gem policier ku nekk jël angle ba angle di rond am ñu civil lu nekk ci biir tànt bi mm-hmm. ndax gars yi dañoo takk ba takk ay jamaa mm-hmm. ndax fu jamaa nekk moom ay perle jamaa ay affaire donc foofu da nga koy aar ndax ay nitu valeur ñoo ma wuyu si woon kon man tamit sama kaaraange war na mot bu bu ñuy ñibbi it Euh, gis seen bopp euh, si xew mi xam na ne fii kat kaaraange bu mot am na ci waaw si sécurité bu mot moo waral lool lool ca réew mee ma bëgg daal waaw réew mi ma bëgg daal. waaw ndax gis naa xale yi dañoo takk keroog ba takk ay tànk or man de loolu damaa jaaxal. gis naa ku mel ni Aji Fathiam borom bus de la solution la mu takk macha allah daa war dënn bi. xale yi takku ba dëgër ba mel ni naanaa lool daal yëm na ma man. keroog takk na li ma gis si ay bijoux am valeur 30 millions la takk. mom dal ku fa tok mom wax deug yalla ba wax sha allah la wala chat waw aji caama nga fa euh aji jam nga fa won samay bàjjenu dom titin jum mi fa won mom moy eh, titin mom mo jógoon di décorer eh, Abidja eh, parce que bàjjanam la ndax aduna lo gis kóllëre la man saw defe na ne même boudé ben fan lebal nako nit ci lu bax bis bobu rek la amone pour ñu siggil ma si ndax man lool rek laa am aji caam nekk à côté Marianne Mendy ñëw dooleel ko waaye kii Bamba Caam mu tuddit sax moom it ñëwoon na euh, di xaritu ñoom Adja Caam ñuy sant ak euh, di sant yàlla te xam na ne Abidja mi turandoo mi ngi France di Abidja euh, jotul ñëw sax waaye dafa yónnee sëram Adja taaw bi mooy yëtoo moom it macha allah ñëw it def teraanga man nag Oumou Sow je suis une personne boo xam ne international la li xale bi naan Oumou Sow dañ koy omelette waaw. dañ dañ koy mayonnaise. parce que mayonnaise bi nag mooy euh, man nitu nit yi laa. Mhm. nitu nit yi laa bés ba ku ma gis xam ne ne fi ma toog ba ma fa toogee ba ba ba ni ma jógee six euh, dix heures du matin laa jóg ci sama sama chaise parce que dañ ne bu dee. da toog di wuyu sëy kii boo toogee doo jóg waaye man awma xaaj ak seen waaye man saw li ma sénégalais yi defal mënuma leen fay sama ñi ma bokkal milieu aar bi liñ ma defal sotle ma gis nga keroog xale yi ñoom maam Bassine Thiam ak Ndiolé Ndeye ku ku lim juum mbaatu Ndiaye xale yi daal takku ba dëgër ak nga xam ne ñoom soit VIP ci côté sama mouvement bi ak Oumy Thiam samay ñeeñoog samay géwal samay mbokk xalpulaar sama famille suñu taaw ko ñëpp a teewu sagal si ma waaw kon daal saw li may wax mooy sant yàlla di ne alhamdulilah ndax su ma wootee ñoom Mami Kanté def délégation ñëw Sorano feesal ko del lii ñëw ñu ne la ñi may avertir gisoon nga Sorano le 13 mars lu ñu def bien vrai que nit ñi Covid la ñu waxoon bu la yeboo defal ñu sept base man leen sept base fu ma ko jëmee sept base yooyu ñu waxoon dolli nañ ci benn ba muy huit maa ngi jéggalu nag ndax sur carte laa ko defoon waaw ñi nga xam ne ñëw nañu te dugguñu loolu gënalu ma parce que ñëpp dama leen waxoon ñu teel a ñëw jël si seen carte maa ngi sant ñëpp sama DG Cheikh Ahmed Ba jàpp ci lool lool lool moom it maa ngi koy sant waaw waa mi ngi noonu kookoy Umu Sow kookoy Umu Sow Sabor macha allah la nit ku baax nee naa la nit ñi moom ku nu xamul noo lay def nanga leen def a tax ndax mën ngaa luyee seize mën ngaa luyee bâche comme set bâche yooy nga wax waaye nit ñi mënoo leen a luyee yaay fexe ba am nit ñi nit ñi am ci yow benn mbëggeel gi ne ci ñoom foo wootee lu mu mënti doon ñëw taxaw xewal la mais mu mel ni Umu Sow ah, léegi nag fi ne maam nga de dégg nga maam nag. macha allah tubarkalla laaw la cat mu mel ni waa léegi yow léegi loolu noo koy dundee nag nga foog loolu du du yan bu diis. xale moo jur xale xale indi sët sant yàlla rek waru jaam waaye man grande sœur laa xale bi moom damay wax tataa walla grande sœur waaw ndax ñoom Mami ñoom euh, Fatou Ndoye ñëpp a ngi bañ waaw Yacine Sow koo wax mu ne la euh, man moom bu ma benn xale wax maam. no ngay man grande sœur la. mbaa grande la nañu yem ci. téem <laughs> laa wax rek benn yoon. non nañ nekk rek ay wala ñu ñu maam moom ku ma ko wax dama wax maam fashion. Eh. ñuy àndandoo màgg tuuti ñu def yu baax. <laughs> koo koy umu saw saboor. fashion <laughs> koo koy umu saw. Eh. umu saw saboor a ngi noonu. xale bu baax boobu waaye bëgg nit. nee alam la alalam ken, ko boole la nga def ci xewma ma ba tay mom la gars di waxtane de deg naa na nga terelee géwël yi waaye ñeeñoo ya ngay àndal ya ku ne taxaw nga def différence musa waaj nga xewmi de. waaw xam nga tax ma waaj ko nit ki boy def da ngay bayyi ba pare bu fekkee pare go rek bul def parce que bo defee rek mën na am fay lolo tax macha allah ma waaj xew bi bu baax ndax bëss bobu bëss ta bo xam mom rek la am. sama doom sagal na ma kon man dama koo war a sagal waaw benn fan boobu wàññiwu la waaye ndey loolu la war a defal doomam waaw bu dee doom la boo xam ne nag dafa aw benn yoon du la jaral benn effort mais moom yoon wi mu jaar ak malgré xale bu sopp woon bëri woon cappi cappi snap yeeg lu ne mu nekk ci yow yaayam di nga am confiance mais des fois nga jékki-jékki rek indil ko ay affaire legi nak bu fekke mom won na la preuve doomu doomu doo lu rek sagal ko mhm. lolo tax man ma sagal ko ci bis bi ay namit ñew ak doole mhm. waaw turandoom ba ca France mam Abidja ñew ak doole nam Adja ñew ak doole ay papam joge Jurbel def renfort ak waa ci ñew ak doole keur pap ku am keur yaay di nga am keur baye mhm. ñoom it macha allah ñëw ak doole ba ci suñu gorob it fameem nekk Thiès ñëw waaye fameem Medina ñëw maanaam ay plus de sama mbokku tukulóor yi jóge Fuuta ñëw maanaam plus de ay dix famille ñoo daje woon keroog macha allah ak sama côté papa wàllu bàjjen yéeg ñëpp macha allah kon loolu euh, famille ak famille bu ñu ñëwee rek booleeg yow sa mbooloo rek euh, loolu loolu leneen lay doon macha allah. waaw ma gis nag keroog ni la sa mbokku fecckat yi mhm. danseuses yi taxawoo. mu mel ni que rivaliser dafa jeex ci seen diggante dëgg wala déet. waaw li ko waral mooy li ñu wane noonu keroog ndax man um saw man mii maa woote jàmm xamu tax ma woote jàmm mooy lii dafa am solo day tax ñuy gën a bëggante parce que ñoom ñëpp dañ bokk ci association des danseurs et chorégraphes mbalax du Sénégal Pape Moussa Sonko nekk président bi man ma nekk secretaire général bi léegi dañoo taxaw ne képp ku xewleet dañuy. dañ lay nurooleel dañ lay euh, defal ndawtal ba yow turu boo amoon mu am sax benn faay ñun bu ñu ñëwee ñun dinañ la ko fattal association bi noonu la taxawee moo tax euh, Mame Bassine gis nga moo ñaw lépp luy hôtesse foofu parce que nit ki tam ci domaine am xew bu jotee dañ la ciy dooleel ñun tam xam nga bu ñëpp ñëwee cotiser jox la ne la yaay ñëw hôtesse bi dañ la ciy dooleel njole it kazalika boo jëlee ndey géej am na boutique léegi loolu la waaw affaire bi loolu la mbaaco it mi ngi jaay yi moom it foofu la man maa ngi ci leedo koor yi cere yeeg tee yu baax yi mhm. ma dit boo ñëwee ak ci coupe yu baax yi waaw ñun dañuy échange léegi dañuy mayante xaalis comme mbëri daal mhm. ndax détail xiiroo ŋaayoo defante yàqul amul amul sens mhm. ku xool mbooloo bi ma dajale barki dem macha allah ba nit ñi naan ma ndax da ngay politique wala dara ndax da nga bëgg Macky Sall fan la dara ci réew mi ndax dajale nga mbooloo boo xam ne bu ëppul milit <laughs> egg na 2000 mhm. ci ngénte rek mhm. man leen macha allah réew mi soo amee ay nitu valeur mhm. yu la bëgg sopp la bis yu mel nii rek la xaar pour ñëw wane seen démonstration de force lii lañ def ak man man awma seen fay ndey it awma seen fay ndax Mami Kanté dina jël loolu dafa am ay ndey yoo xam ne ak ay bàjjan yoo xam ne ñoo ma dooleel ci bis bi ku ci mel ni bàjjen bis collection yaay bis collection biige biige ca Canada ku ne xam ne ne ñëw na fa def asaka yéenam defar ba mu baax ma koy gërëm di ko sant biige Sofia laay laay Maxtaar laay Alassane tey lii ma sol moom moo ko jëlee étalé jesner bi jox ma ko ma defar ba mu baax ñëw kon Sofia laay bés bi daf ma ci doole lool waaye maa bi dafa riisi ndey macha allah moom dañ doon xëccoo ndey sax ñii toog nii yëpp ay ndey la ñii nii ngay gis ñoom Mami Kanté ñoom Yacine Sow ak ñoom Fandoy mais ndey ñoo engagé wu ndey ñoo engagé wu Faa Eben Diop moo nekk Dubaay Faa Eben Diop dafa ñëw yónni délégation am ñu ñëw veille bi defanteeg maa bi lu baax ñu pare ci loolu dem ci ki nga xam ne ni mooy euh, turandoom turandoom mi ngi ci far ci Paris euh, tudd maa Abidja turandoom démb gis nañu or yeeg yëpp génne na ko fa. ba ñu paree ci maa Abidja ñu dal ci waa kër du Modou Faye jaara euh, Faye ñoo ñu ñëwee doole ñu pare ci loolu maam sugu yónnee daba sey vey bi maam sugu faral sama naar bi moom it moom it bàjjan la vey bi la ñëw wane boppam macha allah defar wane cofeelam ci doomam malgré dafa amoon dëj maam sugu ñu ngi koy jaale ndax njëkkeem bu sa si moom moom moo gaañu ndax waajoon na bis bi ndax xam naa ne moom jaam ak pexem yàlla ak dogalam ñu ne déeta waay titin jum ñëw ne moom bés bi moom xale bi doomam la xale bi bàjjanam la ndax da daan ñëw këram daan fa vacances da daan ànd ak ay doomam ndax turandoom moo indi woon link boobu kon àdduna bi amul solo nañu jàppante nañu fonkante nañu bëggante ndax man tey bu ma génnoon àdduna yàlla na yéex ñëpp dinañ ñëw keneen ku ci génne àdduna sa morom lu mu metti metti di nga ñëw yàlla na yéex noonu damay wax exemple pour wax ne rek àddina bi amul solo mm-hmm. nañu bëggante jàppante fonkante man de umu saw bu dee benn fan sax si public boobu nga gis ku ci nekk bu dee benn fan lebal naa la ko ala kuli xaal bés bi fay ma ko rek lii rek laa ci waroon mën a am plaisir bi mm-hmm. soxlaw ma ci xaalis ndax xaalis bi day jeex ndax ba ñu paree ba teral goro yi li ci dosoon dama ko séddale lawbe yi séddale ko lépp weddi gis bokk ci internet baa ngi noonu ndax li béy daan dundee ba sax sikkim papa coon wax na ko mën na cee lekk ba màgg man maa ngi ak sama liggéey di ko liggéey saa yi ma xëyee yàlla ngi may teral kon nag nit ki bul gis li nit ki rek recevoir ci géewam waaye xoolal nit ki tàntam xoolal nit ki ay traiteur xoolal nit ki li mu investir ba am ndam boobu xam nga nit ñi loolu rek lañuy gis ma leen di xamal ne bis bi bu ma ci yeewoon dencu ma ci cent francs sax man bis bi jaral na ma ko ndax nag ay ndeyam ak ay bàjjenam ñoo takku ba dëgër ñëw ci bis bi dooleel ko am na ci ay yaay yoo xam ne ñu ngi ba ay Belgique ku ci mel ni Mami Guèye Belgique am na yaayam yoo xam ne ñu ngi partout dans le monde mais koo wax ay Fatou Ndiour Oumy Thiam ñoom ñëpp koo wax Mounas Seck chéri Baye Ousmane Mounas xam nga lu mu def dafa jël avion jóge ba États-Unis ñëw Sénégal mu ne day ngénte ci doomam kon nag Mounas sekk doomu nday jeewoo ak Mami Kanté Mouna Seck Chéri Baye Ousmane maa ngi koy gërëm bu baax ci xew bi ndax euh, kenn ku la bëgg jar na daw ba dee Aïda Dada di sama nawle artiste nekkoon ba Italie mu jaral ko mu dëgg biyee ngir xew bi loolu dafa rëy xew bi ñi ma ci defal ay surprise defal ma ci ay teranga dafa dafa dugg ci sama biir xol bi Maguette Coy nekk ba Sweden yónnee délégation am defar ba mu baax kon maa bi moo bëri ay ndey nenne jàllo ñu naan ko nenne booy te mu nekkee Sweden moom it laaw la cat kon man am naa ay nit yoo xam ne ne takku nañu ba dëgër Awa jàlloo duma ko fàtte ndax Awa jàlloo li tax mu nekk ndey ndey du ndeyu intérêt du ndeyu la ndeyu kóllëre la ndax xëy na ñoom ku ci nekk mësoon nga ma ndeyale sa doom wala nga magale ma sa doom mm-hmm. kër sëñ du Faye dañ maa magale woon Bintu Faye dañ maa ndeyale woon Bintu léegi nag sama doom ñu magale woon ko kenn ca kër ga léegi nag dañu def aller ñoom it ñu ñëw dalaat sama kaw képp kuñ fa gis mu def fa teraanga fekk na man jiitu naa ci famem man dama yàgg dama dama fonk ndawtal man dama fonk ne tey ji aram xewle na est-ce que aram amul lu ko manqué ci xew man du ma ngistal ci xew man damay ñëw vey bi bu kenn ñëwagul ma ñëw jox la li ma lay jox ne la lii dama ko yàgg xeex vingt ans maa ngi ndawtal war na vingt ans maa ngi wuy ji nit daal defante ak ñom dal lu bax kon bis bu melni aram ah ben dom bi rek la ma sha allah te xeyna amna ñu xamone amna dom amna ñu xamne amuma dom man nekuma ko xamne ne damay fessel sama lépp sama dom xale bu ndaw la bi mu juddo sax yàggul mais ma sha allah bugguma won sax mu dem ba am ay 22 ans wala 23 ans te sëyul ma tela maye sama dom bo xole kanam xamne xale bu ndaw la. da ngay tok ñu la mom de mom ak doom ji magante wuñ dara man leen ma sha allah sha allah bo gisé nak ma def ni j'ai pas droit à l'erreur bu may nitu valeur nit ñi neen nitu valeur la may and ak ay nitu valeur ci réew mi kon sama dom, bu démé fenn toj fa kaas sax wala def lu déli rek sama der lepp lu ma liggéeyoon ci adina dina yàqu rakk bu ma ndey ak bay wala sama doomu rakk wala ken ñepp dama leen di ñaax ci deug mhm. dama don tok ba laaje sabar xini chaque weer dama leen daan yóbbu hôpital sama fiiraay daal di contrôler sama doom <laughs> billahi mooy contrôler samay doom sama doom raq bi sama raq baa ngi ni toog yaasin xam na li ma ko wax dama leen daan contrôler maire bi bi ma jógee xew ba ñëw maire bi nekk ci première dafa ibbi buntam ne ma umu saw macha allah am nga ma man ko ma xool ko nu ma xam nga lu tax ma wax la lool sa doom bi amul woon fitu sax génn ba 2 heures du matin wala fu muy dem sax di nga ko kii di di ko surveiller mu ne ma dama daan gis nga koy ngay xeex ak moom di ko dóor may yéeg ci kaw li leen àtte ndekete lii nga ko bëggaloon. moo tax doomu léegi soo naan ay doomu kanaara la man gawuma loolu. man je préfère. doom bu daan dem ba minuit anniversaire sax mu ngi naan xale yi wuy sama yaay sama yaay allo yaay yaa ngi dégg musique bi fii laa nekk léegi man ko dama ne xawma musique minuit jot na ñibbisil investir ci sama doom dugal ko ci oto école yu baax yi mu jaar ci ay Anne-Marie jaar ci ay Notre-Dame jaar ci ay école yu baax kon sama doom macha allah su ma mënul sax indil diplôme bu mag toog ci bureau na ma indil honneur bi lii ñaar yooyu daal laa doon balancé soit nga indil ma dofis bac wala nga toog ci place bu mag wala nga sàmm sa bopp ba bis bii jot moo ma gënal loolu lépp ndax sa jaam yàlla la yàlla nañ yàlla defal jamm defal ko njabotu jambur yeb defal ko mbolem julit wax ji rafet na sha allah waaye liñu wax lek taasukat yi lu ñu wax deug la dom ndayam da ca dëgër ndax bu koy nampal da koy xol mu melni mu juddu won gis la nga ne ci lenen ah wul sonn nag tubaarkàlla day daal di topp tànk yooyu nag topp tali bi fa seeni riita mbale ba bu juddoo gis yaayam tok ci personnalité waye fu la nek soutien de famille nga am classe sa papa ñaanal la waye sa yaay ñaanal la mom tamit kon lim mu def rek moy fay la bor bi ya ko leble saw sa bor sama waji dama la xam ngay nit ku riis waye ku gën ko xamanteni deureum ak fukki jundi nga yemale barki yonente bi kon abi limu def deug la ci mom te yoon la macha allah xanaa ma lay laaj rek léegi umu saw ci lan lan ko wara deg ni lan ngay wajal wala paré pare euh, yow xam nga limay paré pare parce que papa chon dañu wayandoo woon ben morceau ñu waroon ko clip man nag moom boobu ba léegi macha allah mu waroon génn morceau bi tudd kóllëre mu daa am kóllëre morceau bi ndekete kóllëre boobu du génn tànk coon génnul àddina parce que maa ngi ciy waxanteeg Benjamin euh, ma naan ko gis nga morceau bi ni mu demee waali way na papam way na mixé moo ci des pour way wi génn coon ñu dugg koor génn koor ci la coon gaañu ba tax na noonu noonu avant corps coon gaañu léegi ñuy jëm korité morceau bi doo ko mën a génne ndax coon amul woon quarante jours il faut nga bàyyi ba mu sedd ba ñu ibbiwaat affaire yi ñu mën ko clip léegi loolu laay xaar incha allah Maria Sin Wally Seck mi nga xam ne moom laa bàyyilee sama doom bi ndax dama ko delloowaat cër bi ndax tey gii bu ma jëlee cër bi euh, sama papa coon nekk sama papa tey jii ma am doom bàyyile ko ko am nañ Mansour bu nekk États-Unis bi mu nekkee bébé it dañ ko ko bàyyile woon papam Ziko euh, maam Assane jax yàlla na xippee aljana mu bàyyile ko bu Buna jax moo topp ci pàppam moom xale bi ñu doon xewal Buna maa ngi koy nuyu de passage man ma jël sama wàll bàyyile ko Waly Seck moom laa wax mama Kiné barki dem mama Kiné Diouf it dama koy gërëm ndax xew bi daf cee jàpp këram laa dem na sel ni na sel ni na sel ni te lepp lo nas ci geew bi ba tok bu la ko kenn yàqal Iya ma ngi lay ñaanal yalla na la yalla defal jam. defal lu gudd fan ak wér gu yaram ndax dafa am ñaar ñu for ci man ño xamne ne xew bi dama perturbé won mais dañ ma wo dalal ma muy nak kan ajaratu ngoy faal mu bax mi mu ngoy lama mama ki ne wax rek lama fal wax ngoy faal ma ngi lay gëreum di la sante ndax nag xew mi bu réussiree nii ba àddina yëpp di ko wax danga ma tëj sa néeg bële man ak yow ak yàlla nga waxtaan nag man ci fulla ci personnalité ak ci jom ne ma naseel nii defeel nii waxeel nii ñaata nga am ma ne lii laa am nga yëkkati xaalis bu bëri ne ma demal doole demal renforcer xew bi du man rek de dama bëri ay nitu valeur yu ma renforcer maa ngi ñaanal Ngoy Fall bu sëriñ Askia Touré may ñaanalee Adja Kine Diouf ni may ñaanalee euh, ñi nga xam ne ne ñoo ma dooleel ci bés bi yàlla na leen yàlla defal jàmm ndax nag ñëw ci bés ne borom bés bi demal toog fee man tey maa maay jàmbarloo ak say nit tey sama moromu ñu ma bokkal aar bi ñoom njooleek maam Basin ak ñoom mbaacoog ndeygee ASC bi Aïda Dada mu baax mi gis nga ñoom ñëpp ku ci nekk tey jii sama bàjjenu doom yooyu keroog ba ñuy dem ñoom kontaan nañu ndax ku ci nekk woon nañ la defanteeg yow lu baax te ba nga ko ibbee yuuxu nga. ne titi nee ma keroog ba may dem sama pochette sax mënul tëju ndax damaa ñëwoon ak yéene ndax damaa gis xale bii ni nga sonnee ci moom ci lépp du ñu wax lépp mais ni nga sonnee ci sa doom moo waral man ma ñëw ba pare sa doom bëggoon ma daan vacances sama kër euh, kon tey damay ñëw def sama asaka yéene. may gërëm maamam Yacine Kane ndax moom it ñaanal na ma ci bis bi avant ma koy tàmbale ja Alpha Malick maa ngi lay ñaanal bu baax maa ngi lay ñaanal nga yàgg fi te wër yow ak maamaatu maa bi ndax man duma joxe bopp rocc ci laamin àddina nag moo toll foo xam ne dañuy toll foo xam ne nit dina xër ci yow am cofeel ci yow am yéene ci yow man jaaxaan rek lay tëddee saw waaye nit bu ñëwee ci sa bis wane fa doole wane fa ay jëf yoo xam ne ne lépp rek pour bégal sa doom kooku sa soppe la du sa noon kon nag maa ngi gërëm titin jum ginnaaw bi ma gërëmee turandoom maa abi ja ca ndax man defal na ma teraanga ba tàyyi du ma fëkk jëf waaye maa ngi gërëm titin jum maa ngi gërëm awa jum ndax ñoom ñëpp yëkkati nañ seen teraanga defal ma ko di gërëm ummu doomu titin ndax defante naag maa bi lu baax maa ngi gërëm it ki nga xam ne mooy yaayu titin muy yaa Hadja madame Souley gisee bi nga daan dégg HLM moom it muy nitu valeur mère bi mu ñëw jëflanteeg ñun lu baax defanteeg ñun lu baax ba bis ba jotee dañoo togg añ togg yépp ñu ne képp kuy bàjjen képp kuy yaay nañ la yóbbul maam su ko dañ ko doon yóbbul waaye dafa am dëcc ñu jël euh, añ yi ñu war a yóbbul bàjjanam euh, rëbës ma dégganteeg bàjjanam mu ne ñun dañoo togg añ ñu jël añ yóbbu kër ñoom titin dañuy def dife ñun dañuy def transparence rek ba ngoon nga jotee ñu ne kon kat kër bàjjanam amul reer ñu jël ay barket dogale leen jox leen ndax xew bu amee wax ci day bëri polémique gi day bëri ku nekk day toog sa ruube yi di de bëri def yëpp di bëri waye man saw ci suis une personne comme ça ku nek nak ma jappé non la lay jappé ndax jamono toll na fo xamné ko bay mu dem ak mbagam mais nañ and ci deuk nañ and ci sincérité mm-hmm. buñu and ci règlement de compte mm-hmm. ndax règlement de compte yag yag souf yek kër yek milliard yek oto yek yep souf gi ngay sango mm-hmm. man sama jor bi ala kuli hal dama ko dama koy bàyyi xel luma way traité nak ci sama bis bi yàlla na ma ci yàlla àtte ak yow ndax nag bis dafa metti te diis mu metti lool mooy gërëm fami Goro sama doom yi nekk Medina di gërëm ku ci gën a tuuti ba ku ci gën a mag di gërëm mais nga xam ne moo dooleel xale bi di gërëm tamit euh, Mati di gërëm famille ba nekk Thiès papam Badara Samb ak ak yaayam maa ngi koy gërëm di gërëm képp rek koo xam ne ne ñëwoon nga rek dox ci bis bi tànku jàmm tànku famille waaye sam suñu taawu kër di Adama saw dafa maa jàppale ndax veyu événement bi bëri woon nay détail ba ma bëggoon fomm ma xew mi mais sama mag moom ma tegaat ci kot mhm. soulagé ma dalal sama xel Adama Sow maa ngi lay ñaanal yàgg sa jabar yu baax boobu may mën a Sow yàlla na ngeen di maam mhm. di ñaanal suñu taawu kër Fat Bari madame Mbengue mhm. chéri papa mooy suñu taaw waaye veille bi bi mu jotee ànd naa ak sama yaay ak sama raq bi toog Yacine saw ñu dem ñu toog ñu waxtaan en famille ndax xew bu jotee ku nekk day bëgg a toog sa wér ruube yi bëri te bëgguma ku ma jaxase ak sama famille ma waxtaan ak sama taawu kër mu wax ma nii ak nii ngay nasee la ma Ngoy Faal wax la ma mama Kino Diouf wax loolu la ma waxaat yaay booy puy jabalu sëriñ Abdou Karim Mbacke maa ngi koy ñaanal bu baax di ko jaajëfal moom it woona ma ba tuubaa sëriñ Abdou Karim Mbacke teg ma ma toog mu waxtaan ak man ne ma nii ak nii ngay defee xam nga bu nitu valeur yooyu boo leen amee tu n'as pas droit à man nag Oumou Sow maa ngi jéggalu ñëpp di baalu ñëpp ak surcat carte laa ko defoon ngoon gi ba bëccëg bi moom ñëpp a doon ambiance mais ngoon gi nag dama ko def sur carte ñi nga xam ne dugguñu maa ngi leen di jéggalu ci barki Sëriñ Fallou waaye maa ngi sant ab si giro giro amati ca États-Unis ndax ab si giro it indi na délégation forte ñu ànd euh, ay ay fameem ñu ñëw lum fa wàccewul amul brodé pirxa bàyyiwul or bàyyiwul dara ab sa giroo amati dëgg-dëgg maa ngi lay sant su ma sañoon ngeen jël loolu su ma sañoon ngeen maa ngi lay sant donc maa ngi maa ngi ñaan euh, Sénégal am jàmm waaye maa ngi nuyu euh, sant anti ami ñam parce que Gambien yi dañ ma bëgg Euh, Gambiens yi nekk nañu ay nit yoo xam ne samay soppe lañ kon anti Amy man may half Gambien half Sénégal ndax sama turandoo Gambien la moy Oumou Banjul alen Street la dëkk ca Gambie yàlla def mu génn aduna Aïcha ndjay nekk fa uuf njabot gi Abou Dande ndjay muy sañu doomu turandoo gaañu fan yi euh, ñu koy jaale waa yep yëpp euh, yàlla na xippee aljana kon tey Gambien yi bu ñu mobiliser woo nekk ba ca néegu Amérique ca Washington DC nga xam ne mooy capital ba président ma bu nekk ca White House ñu mobiliser wu ne bis bii ñoom it dañ ma ciy dooleel kon anti Ami su koy Camara Ami Diop London Khady Diop Naasi maa ngi leen di sant ndax doom bi doomu ñëpp la yéen yéen ñëpp a ko jur waaye ba ñu déggee ne maa bi am na doom rek ñoom ñoo yëkkat seen téléphone woote maanaam gis nga bis doo ci dugal ku ko ku ci buggul dugg bis comme Mami li mu def barki dem dégg ñëpp di coow ngénte li mu ne ma aloo Oumou saw dama dégg ne dañuy ngénte maa bi te yëguma ko waaye duma la ci topp hôtesse yi nu muy demee loolu mooy nit waaye yéen ñi may seetaan it yéen ñi nga xam ne ne samay kóllëre ngeen te yëgu leen ko maa ngi jéggalu xel day fattu waaye man kontaan naa ci ni mu defee ndax loolu mooy àddina waaye ñëw rek di la mere ci ay xew xamuñu ne xew bu jotee euh, xel day fattu mooy loolu Oumy Thiam sama ñeeño Oumy Thiam lu yàgg dëgg la ndax nag Oumy Thiam la woon Fanjul ci États-Unis jaara jaar may ñaanal jaara yàlla na xëppee àjjana xew bii dama ci am manquant am naa ci mànkan ci Anna Samb mooy yaayu ku góor ki di woon sama xarit am naa ci manquant ci jaara jaag nga xam ne ne xew bu jotaanee suma to su toge eh, ne ma gis nga yaangi ni lekko dara manam xew bi dama sey xawatum a ci lolu mm-hmm. daf ma daan jëlal ma lek gaaw ma lek yasin xamna ci dara mm-hmm. xew mom côté bob moma ci doon topato ren kon dama am eh, si xew bi amna ci mankan ah, waaw am benen luma lay laaj benen mankan bu lay laaj waaw ndax ken dawul tuddu umu saw sobor mm-hmm. to tuddo papa chon fo a di nga gis umu umu saw waye di nga gis papa ngay doomam bu sincère bu yàgg ba dara xewul yow xaaroo ba waali xew nga doog a doon doomam ba ngay doon doomam mooy ba mu mettee ba tar bi ko ñépp ginnaawoo yow Oumou Sow Sabor yaa taxawoon ni ko yaa may maye yaay sama papa waaye nga sincère nag ba tey jii may wax ak yow ay mbokkam sax tey nga leen gën a bëgg léegi nag kooku dem woon na ginnaaw Oumou noo ko dundee bis boobu man dama laa xalaatoon nag. ni ma ko dundee de yàlla naa ko gëj a dundee ci àddina. ndax ginnaaw bi ma ñaanalee papa sama doom bi génn àdduna maam Abidja maam Assane Dia yàlla na xippee àjjana euh, dama dal ci papa Thione papa Thione euh, sama dimanche boobu yàlla naa ko gëj a yeewootu ci àddina ndax maanaam bu ma amoon cardiaque man xam naa ne fa mais métit boobu ba léegi maa ngi koy savouré sama xol mais dama gëm yàlla di julli di def say allahuma salli mooy muy wàcc tuuti ci ci yoonanti bi rek mo waral mais Papa john nek na manquant ci sama bir xol nek na manquant ci sama côté franchement nañ bàyyi noonu ndax amna luma déssé ma lu bari ci sama xol ci mom té moko défé fi day melni ngistal la ko di ñaan di def sama wacce kaamin di ko ñaanal te yalla rek ka te kenn bu mu xam waye man man amna manquant bu baax ndax ko xam da ngay tok rek ma umi chammi dem studio Saint-Valentin dama ko daan féetee ak papa Thione xale bii ñuy génte tey da ko daan teg ci wetam di teg kon Maria Sine may sa biige may sa tënd Daawur Mbaay Galo Daawur Mbaay am naa manquant man mii may am manquant la yàlla def jàmm waaw ah, baax na daal nañ ko yemale foofu daal nañ ko yemale foofu <laughs> waaye déet xam nga man maanaam ñi seetaan ñoom xam nañ ni sax ni li ngay wax dëgg la du looy tricher ndax nag Oumou Sow moomul sénégalais yi lii dafa yàgg mais lan moo la gën a manqué ci moom. li ma gën a manqué ci moom. <laughs> nee sa joy yi ngay joy yalla xamna ko du joy ngistal du joy seytaane ndax lu jóge ci xol la dem ci xol ta leer adna àddina na ay mbokam barki mohammed nee la bu ngui bëgg dara xewul ba ngay mel ci mom ni demoon nan ba Sénégalais yi ne Oumou saw dafa nopp sax Papa Thione ci ñu xamul mais ñun xam nañ ciofel bi nga amon ci Papa xana di la wax rek nga ñaanal ko mu gënal ko fi mu ci barki yonent bi lo rek lan lay ñaan da nga wax sa dernier mot rek émission bi daal di jeex umu. ma dernier mot mooy dama siy ñi jàppale si sama xew bi ñi nga xam ne ne bés bi dañ ko jël def ko comme seen bés ma damaa ma làkk jàppale na ma nag jàppale ma waaye maa ngi gërëm tamit sama DG Cheikh Ahmed Tidiane Ba maa ngi gërëm sama DG maa ngi yaayam. ajatu ko fal may gërëm jabaram li sa doy may gërëm seena bu ba ci délégation forte bi mu def may gërëm soadu vip tamit jàpp na si ñoom bu mi cham may gërëm fat doy si togg yi may gërëm képp rek ko xamne rek nga si bis bi franchement ku ma lebul sax nak ma baal ko sa du sama coobare ñoom kura may ñoom day gëj siri ñoom ñëpp wa europe ah wa wa otesi 没有家，没有故乡。 ngi koy gërëm di ko sant bu baax ndax gigi place bi mu toogee ci sama côté yombul ndax képp kuy indi ndawtal wala dara gigee ngi jën gigi Anta Gajaga ñoom ñëpp toog ci sama wet darma ñu ne déeta waay macha allah gigi pare di waat ci Jésus di wax ne man laalu mu joxe xaalis bi ba mu jeex ci Jésus mu sow mu ne 100 jël naa ko ci sa xaalis bi Guigui loolu mu def yëfu noobul la Guigui merci thank you bu dee ci côté sa sa xeet nee naa la amen alléluia amen amen Guigui merci Yacine Sow taxaw nga ma yow sama raq nga waaye yaa jiitu ci man yaa sa borom bi a jiitu ci man waaw parce que xew dina toll foo xam ne vey bi day jot yow nga ñëw ma ne Yacine boo jiituwul woon si man man nàmp jox la yow di di nga ma jaaxal waaye nag wax dëgg yàlla bàyyi gërëm sa jëkkër Espagne ba baawoo yónnee na lu nekk wax dëgg yàlla gërëm naa réew bi yëpp Fandooy gërëm naa la Fandooy doomu yaay raadu Samb fële ca France yow tamit yow nag maa soutenir sa kër lañ nekk nii sax Aïssata Cissé yaayu maa abi la ah waaw xam nga Aïssata Cissé dafa doon ndey nekk ba France Aïssata Cissé day day waxanteeg man ba benn heure bi Aziz Sy day wax ak man sax lu ko dul wax ak kenn ku ma ku ñu bokkal suñu milliard bi à part Mame Bassine kon Aïssata Cissé su ma defee émission bi te tudduma la dinaa lekk riba waaw ndey Mbacke Luxembourg maa ngi koy gërëm di ko sant ndax ay cuubu VIP lu mu chéré. cuubu VIP yi nu mu chéré nday Mbàkke jënd ci ay plus de 10 ma teralal ku ku la neex Mbàkke balay sa jërëjëf mun naa sekk États-Unis jëf merci beaucoup maa ngi remercier waa àddina ndax ku ma limul rek na nga ma baal jërëjëf di gërëm ngooy Mbay ndax ñoo nekk fële ca 7TV di fa liggéey Ngoy merci beaucoup gis nañ sa taxawaay ci bis bi jërëjëf chéri Habi di gërëm Faat Banna sama gawlo maa ngi koy gërëm di ko sant di ko ñaanal jàmm di gërëm sama PCA ya, mëna ndur fay di gërëm goni ndur di gërëm képp rek ko xam rek ma ngi liggéey ak yow ngay sama leader ma ngi lay sargal di wa CATV merci DG Thiamet Tidiane Ba maa ngi ñaanal ñëpp caam merci wa fiké dafa am euh, wax fiké waxna lo loo xam ne rek tay ji wax dëgg yalla defna lo loo ne erreur la ma ngi si jéggalu waaye maa ngi jégalu si ko koo xam ne rek déggoo sa tur maa ngi siy jégalu bu baax a baax a baax merci